dama gisul nu nu mën fexe fexe fexe wala nu toog di toog di toog ba sunu réew mi ñu di fi jël ay liir ay gone ñaari at di leen rendi di leen fees ñu di ko seetaan dama xamul naka la nu sàggane ba sunu waxambaane yi pour faire yi quel nous réunit désert bi di nous di nous comme géej Nous wala ñu di nous jaay comme Diam, ci marché Libye Nous qui ci Méditerranée nous sommes nous, nous, nous, nous, le 25 mars 2012. dañoo wote ba jant so ñu ñu wàññi ñu ne Macky Sall moo ëppale Abdoulaye Wade téléphoné ko ne ko gañe nga jël ay bagages am dem Macky Sall toog tey jii Macky Sall li mu décidé mooy le 24 février date bi mu ko jàpp 24 février bëgg na fas na yéene bu sénégalais yi nee du moom mu ne mooma fas na yéene bu sénégalais yi nee du moom mu ne mooma loolu ndax dinañu ko nangu ndax dinañu ko nangu affaire yéen ñëpp ne ngeen du ngeen ko nangu loolu nag du yem ci làmmeñ dañ koy jëf Macky Sall nee na dina yóbbu projet de ñu changer constitution bi ci assemblée nationale dama bëgg ñi nekk fii ak ñi fi nekkut te di ko dégg bés bu ñu ko jàpp jàppee bu ko kenn wax sa moroom na ñëpp dem amul dama doon xaar Moussa ma dem ba nangam wala dama amoon ngente wala sama ni day nangam nañ ñëpp daje foofa lu mu ko jaral moom nanu ko nanu jaral nun lu ko ëpp sunu ko jaralut nag ko jaralut nag bu ñu fi rayete ab liir ba nuy wax sunu ko jaralut bu ñu jaay sunuy doom ci libi ba nuy wax suñu ko jaralut bu nu bàyyi ba suñuy doom di lap ci géej bi Méditerranée ñu toog fii di jàmbat ak naan di suñuy loxo yàlla yàlla du ko def ba mukk yàlla li mu nu wax xam nañu ko jàng nañu alxuraan ñi dem yàlla lay wax maanaam jullit yi wax su la nit ñëwee bëgg a foqati sa alal ci doole su nit ñëwee bëgg a foqati sa alal ci doole na nga ko jaay doole soo ca deewee àjjana ka jëm ndax ci la soo ko mënul jimboori moo ne pour daali jimboori merci merci merci merci merci merci en man daal li may wax loolu laa ci xam loolu laa ci xam fii suñu ne Lat Joor ñëpp tàccu suñu ne Maba Jaxu ñëpp tàccu suñu nee suñu maam ñu doon résister Serigne Touba ñëpp fottasu dëgg la wala lu tax ñuy fottasu ak attaque parce que booba dañoo nañu waroon a taxawee moom jotee dañ koo taxawee nun nag ñu bëgg toog fii rek di yàccaaral di yàccaaral rek yàlla foo dogu la lay daggal ku dogu ci yàccaaral mu daggal la ba nga yës ci say morom ku mu daggal ci ngó ku ci ngóora mu daggal la ba nga raw ci say morom kon nag nañ góorgóorlu jërë ngeen jëf